ba tey ci seen scandale du jour de ce 19 avril 2024 te ñu dem seetaan vidéo bi ñu ñëwaat. xoolal buñ ko tegee woon nu mu ko buggee bu ñu ñëw déwén ku nekk nga indi 4 4 wala 8 8 mbaa Mercedes mais dañ koo tegul ni mu tegewul rek xoolal ki ñëw ci Serigne Bamba koo xam ne ragal faat waxtu moo tax mu jël jëram mu teg ko gars yi ne nañ lépp ci Bamba bi la Serigne Touba boo gimee rek jeex na ndax sa bopp rek. julli jot nga bañ ne ci bamba bi la uh-huh. billahi nekkul ci bamba bi <laughs> waaw julli jot nga bañ a julli ne ci bamba bi la ah lo wax nga serigne touba rek nga rombu sa yaay do ko niw uh-huh. ya gatt xel do fatale ko bi nga nekkee ci sa biiru yaay xolal ki yah dug rek yah léegi nak nit ak noppam ak lepp mu ci biiru yaayam au uh-huh. mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois six mois sept mois huit mois neuf mois mu wax ne yàlla dama bugg a génn de yàlla ne ko lu la naqari fii mu ne dama fee xejatul rek doom bu buggee juddu loolu la wax yàlla dama fee xejatul rek mu ne ko ah mu ne su ma ci daaru dunya ma rey sama yaay biiru yaay biiru yaay ufu rek yaay màgg biiru yaay di ufu rek ba biiru yaay toll nii yaay tayal yaayaa ngi tàng lu ne yàlla wax doom bi ne ko génnal doom bi di mbokku fii nga gis yaay bi ne uh, xool bi di miti hmm. Hmm. yàlla ne yebal ñaari malaaka moo tax jigéen a tëdd hmm. mu ne dem leen ngeen jàppule ndaw si mu génn malaaka yi comprendre fi doom bi war a génne ñu ñëw fii ci ndeyjoor doom bi daw fii ñu ñëw fii ci camooñ doom bi daw ci ndeyjoor biir bi yëpp anandoo di miti yaram bi yëpp dee ne ko waxal yàlla tiifu yàlla tiif ndax yàlla dafa am ñëwante wax ko ñi naan laa ilaha illallah mu ne am ñaanal ko dafa nekk jigéen dafa nekk ci ci am ñuy ñaan rek di ñaan rek yaay di góorgóorlu rek ba si yàgg rek yàlla wax doom bi ne ko gënal am nga ndigal mu jox ko do yoon xolal dom bi ni yaayam taxawé la taxawé mais baya juddu am yàlla defay wólbati dom bi tanki dem ci kaw bopp bi ñëw. mu ne dar bi qudrati la ci dole yàlla bu ne jalal bu ne jalal rek mu naan allah allah allah allah jalla rafiq lol la dom bi wax. yàlla yàlla yàlla yaay ki yekete ku ki rek mu ne teg doom bu juddu te waxul bi rek dem len ngeen sul ko deena famu fa kañ yàlla boromam. ñun nak amuñu baatin ñu dégg dom bi wax. uwe بوبو ما جاهر بي اوي وهو البوبو دي دي الله الله الله الله, الله جل رفيق محمد صلى الله عليه وسلم سين ياكار بي مو نيوي لا واخ الله فسا فامي نيو نانغو ركنا nga بيرو biru biru yaay miti pa dal di teñando rek yaay tem mu nelew te ya gatt xel te ya yor yaay rombu sa yaay bañ ko faale te bo ñewé ci marabu bi nga génne cent mille mbaa un million foon loxoom jox ko te yaa yorom yaay bañ koo faale yaa gàtt xel ah, ah, yow yaa dof sëñ bàmba de santu leen ko ba ñu julli ba ñu woor naan ci bàmba ji yàlla baax na da yàlla baax na xam naa ni daal ki mënul wax lépp waaye sénégalais ëpp fit ñëpp sénégalais ëpp fit ñëpp kay te magum jëmmu toog yow bay fal den ko bay fal wajo nek bay fal wer ko jot nga naa man bay fal la du ma woor rus doo tit do ragal di lek di nan bëcc ko weru koor ponkalu magum jëmm naan a fal la laa <laughs> yàlla baax na lii